Mobile ak koor gi Mobile lu muy dundee koor gi. waaw sant yàlla rek comme ñu ko ñëpp dundee rek ah, ah waaw benn la rek ah parce que lépp ci xel la waaw ñu ngi ci kaw. ci xel ci nan. waaw ci népp comme ni nga koy dundee rek li nga ci yëg lañ ci yëg rek. mais yow mbër nga danga nga war a entraîner. waaw mais période bu nekk ak entraînement yi fi muy toll rek. période bii lu mu laaj. période bii da ngay entraîner comme ko amul combat benn yoon rek. waaw buñ dogoo ba pare rek. Mobile ak weeru koor Mobile mas naa war wooru gaale. wooru est-ce ba nii bàyyi naa ko sax non dama voyage woon dama jóge woon fii dem Louga jóge Louga war a ñëwaat Touba léegi nag ak tàngaay bi noonu <laughs> ñu dem ba benn dëkk boobu sama batterie faible trop trop trop mënatuma kaa dékku waaw. noo dagg kër. ah ci benn kër laa dugg commandé lu ñàkk tang bu baax def ci diwtiir <laughs> ko wax ah? non man ak sama benn xaritu mbër nag ñoo ko defandoo. <laughs> sa benn xarit xam man benn nit rek laay àndal. kan la ci gaay yi. bébé Malick Niang. est-ce que fay ngeen koor boobu. non man moo wax dëgg yàlla du fay. yow ñu ne ku dagg da war a fay ngeen du ma fay. man kay lu ma woor woor naa ko waaye lu romb romb na. maa wax loolu. yow daal noonu ngay woor. ah kuy am buru 10 000 mënoo koo fay nooy lebee yàlla. comme woor <laughs> génn ànd ak sama gars yi dem géej. def yëfu booy rek <laughs> wooree gàll mais buñ génnee dem géej moom mooy loolu ko waaw. kooru ren gi dégg naa gars yi naan yow fi mu ne méttee sant yàlla toog bañ a lekk moom métti na ak maman bu mu a doon nag. métti nag waaw mais sant yàlla luñ def la. yow daa mel ni ma la dégg nga daa mel ni bu ko keneen digle woon ku dul buur bi est ko def. bu ko keneen digle woon ku dul buur bi. waaw non doon man kese boobaa. léegi sax mën nañoo tëj paas boobu tuuti continuer nag ñëw ci làmb ji mobile ren mobile dugg ci TFP ma fekk la saal nga ne ma yaa ci dàq fecc yaa ci ëpp doole yaa ci man ñu dem premier journée nga daanu deuxième journée nga daanu loolu noo ma nooy loolu noo koy tudde loolu waaw noonu laa la ko waxee woon saal ma ne la woon lan laa la waxoon waxuma maay daan ñëpp waaye wóor na ma ne maa ci dàq bëri maa ci ëpp kàttan te maa waxoon naa la ko. sa combat ak soq laay ñëkkee boobu moom ni ñu ne da sa bés parce que la nga def kenn xamul la. non bëri loolu mooy nekkoon yoonu làmb ji bu ma waroon daan lu gën a assuré loolu laay def mais man maa waroon daanu moo tax yëfu cuune laay def. nga jóge ci ñu ñëwaat si beneen combat sa digganteeg Ramdan boobu itam boobu sax moom yow sax laay bàyyi nga net li combat film combat boobu yaa Ramdan ah boobu moom comme ni ko Sénégal yëpp seetaanee nag waaw mais victoire du victoire du weesu victoire victoire la bu rëy la mais moom waxal na ko boppam moom yaakaaroon na bëre lu ëpp loolu parce que jour boobu xool na boppam xool na ma mais amaan suñu borom moo ko tuddee woon noonu ne noonu lay amee waa mu amee noonu. parce que dama gis ci combat bi nga def action ngeen ànd dem ci suuf di jóg jëkkante jóg yow ci sa jóg kenn laalu la mais yow yaa jékki-jékki def sol boobu kaat ab. boobu dafa daw plaqué ma bi ma plaqué boo gay plaqué. Eh, daanu na de. boobu kott naa ci bi ma nooju ko bi ma ko noojoo mu rëpp ma koy contrer di ko delloo mais sama pied d'appui ci sa kaw saako bi la joggi boo xoolee saako bi moo daw waaw ah, ma tarxis. muy ñaari combat xam ne boo ko xoolee gisuñu ci nga bëri ci nga xeex ci ba pare ñàkk ko nit ñu bëri affaire bi jaaxal leen. waaw nañ jël yi ma bëree bëri bu rëy xeex xeex bu métti daan. parce que yooyu man maa waroon daan moo tax yëfu ndaanaan laay def mais boo waree ñàkk cuune ngay doon yëfu cuune rek ngay def ba ñàkk. léegi nag ñu ñu jëm ci le 23 juin bii ñu jëm muy demi final xam nga ñaata point nga am yow. man amaguma point. léegi ku amul point war a dem ci dernier journée am lu ko war. comme ni ma doon ñëwee làmb yi paase. loolu laay ñëwaate boo buggee dégg-dëgg. làmb aw ci stress man maa ko opté di ko def ñi choisir sàcc dañuy sàcc tey ñu jàpp leen tëj deux ans nga génn sàccaat ñu tëj trois ans nga génn sàccaat ñu jàpp tëj cinq ans parce que ñoom ñoo ko opté ni ma doon ñëwee comme ko am victoire noonu laay ñëwaatee waaw. xam nga ki ngay bëreel. bu baax. kan la. doomu dàngu. gis nga fi mu mujjee. waaw. loo gis kera. waaw wane na jom wane na fulla def na yëfu ndaanaan. ndaa ndaanaan yu mel nan la mu def lu mu doon. waaw xeex xeex bu metti hmm. waaw xeex bu metti yàlla may ko si ndam ci xeex bi. Hmm. kon xam nga ne kon yow ki nga ko seqal du ñeexum ñebbe sa combat bii nga jëm. maa ngi ci douze combats xaw ma treize. xeex naag huit mbër ñi ma xeexal ñëpp dañoo gaañu man mbër mosuma gaañ. ñoom ñëpp bi ñuy signature ak man biñ taxawee dañoo wax ci xeex. mais naa la ñun ak micro yi lu ñu neex wax mais barrière yi rek arbitre bi arrière nga xool ma ma xool la ñu war a xeex da ngay xool lu ko gën a yomb da ngay xool lu gën a yomb xeex bi waaw loolu day am maanaam diw daa mën a xeex taxul ñu si def dañoo tële mais làmb dafa am ñaar boo mënee bëre ba mu nekk ci yow day nëbbu leneen loo am boo mënee bëre bëre nekk ci yow day nëbbu leneen lu nekk ci yow. lenn day dama la koy parce que dama gis mu xeex ak soq. xeex bu tar mu kawuti yow nga jëm ci sa digganteeg moom te yow da ngaa ne ci ñaari defet fi ne nii moom liñ naan wasin ba dem tool du dégg nga baatu wolof boobu. man ak moom ci la xeex bi war a gën a yomb parce que ñoo bokk tànk bi ñuy teg. ñaari pied droit ngeen. waaw kon man ak moom la xeex bi di gën a yomb. kon yow ragaloo xeex ak doomu daangu. <laughs> doomu daangu. bis bu ma demee sama àdduna ba ma toog ma xool nit wala leneen lu dul nit ma xam ne lii ñemewu ma ko billaay damay bàyyi li may def ma dem xool leneen parce que kenn forcé wu ma pour ma bëre man am naa doole lu ma liggéey am xaalis bu ma wóoree damay dugg ci làmb ba pare di si am lu may calculer ci nit ci kii wala ci kaa ma bàyyi ko dem defi leneen waaw dañ ñaan yàlla am ci ndam mais lépp loo xam ne luy maye ndam la dina ñëw moom esaat hmm. am ci ndam la ñu bëgg li ma waxoon démb ak bërki démb loolu laa gëm maa ci dàq bëre maa ci xorom maa ci dàq fecc maa ci bayre kii daan ñëpp nag yàlla ko xam mais heure bu ma ñëwee stade dem ku ma xool di nga xam ne kii daa ñëw pour daan te amul ku ci arbitre bi di siffleel ñu xool ne kii mobile da doon moytu ci loom lii moo ko xañ lii combat yi ma perte ak yi ma gagné ku ci arbitre bi siffleel yaa dem ci saaku yi man mbër musuma sës si saaku waxuma xeex de mbër musuma sës si saaku combat bi di ñëw xalaatoo ci sës ci saako. bu ma ko defee yàlla na ma dóor ma daanu. Ah, moom da xam naa mën naa dóor. bu ma ko sësalee saako yàlla na ma dóor ma daanu. kon daal la nga fas yéene ñàkkanteeg moom ci digg géew. loolu mooy géej gi am ndox ndax man ak moom dañuy wala dañuy bëre mooy Mali am na karité waxatuñu loolu. wax mais ba tey ci ci kii bi nu ñu koy TFP bi dañu gis bi ngeen di ñëw ah, wax dëgg yàlla. bokkoon nga ci ñi gënoon am yaakaar ne war nga mën a am 9 points mais nag bi ñu demee ba presque ci fin bi parce que ñu ngi jëm demi finale ñu gis ne presque marqué go point loolu psychologiquement amul lu mu yàq ci sa ay préparation sa concentration bëgg-bëgg bi nga amoon ci lamb ji ba tey. waaw loolu moo lay wax ne kon li ma lay wax du dañ parce que man moom mën nit ñi mënu ma leen nax te bi TFP bi taxawee amateur yëpp koo dem di wax dafa lay wax moo bi la koy jël kon naxuma leen parce que chaque jour ñu ngi ci lamb ji li ñuy dem ko dem lamb. mais amul lu mu yàq ci li may préparé parce que quatre ans ci ren heure bu ma demee stade maay daan ñëw xaw ma defet ñi ma doon daan ñu leen di lëng di yóbbu nag ah waa buñ ma daanee. waaw bëri de daan ak daanoo la mat si nii. xam nga la laay bañ ci làmb ñu humilier ma xam nga humilier fan la commencé nga simmeeku ñëpp xam ne kii parewul nga dugg ci géew bi ñu duma la daan la man loolu laay bañ. mais leneen lu ñëw mun naa ko gérer ci cadre sport mais nag kenn du ma humilier. mais fi mu nekk nii psychologiquement mobile amul benn problème ci làmb ji. xanaa déggoo ma la bu may ñëw damay ñëw comme man maa am 6 points. booy ñëw le 23. barke alxuraan. maanaam ñëw lañ la xamee woon fecc fecc mu rëy créer lu bees ne xam naa moom gars yi moom loolu dañ koy xaar ci yow. yooyu noonu. loolu jarul dem Mali di ñaawlu sax. waaw. bu ma ñëwaatee kay mu melaat neneen rek. bi bi ngay njëkk a ñëw yaa ngi soox ban nga netti woon ban fecc nga ñëw ndiloon boobu. fàtte naa ko man nag fecc yi daf may diggal nii rek damay toog xalaat benn affaire rek. Lamine am na ma gisoon mu fecc ba dóor loxo yi nii ci ginnaaw. fecc yi damay toog xalaat benn affaire nii rek. fecc ko. fi mu ne booy xalaat ni xamaguma fi <laughs> mu nekkee ba koor gi la. boobu daa war non après koor gi xam nga korite après day passé ndéwénal nga war a jox amateur yi boobu moom xam naa moo war a gën a mën a rëy yi passé woon. waaw ah, kon wutal nga ko tur ñu tuddee ko ndéwénal. Hmm. benn lu am sa diggante sa yi daal maanaam merewuñ la. man aw may supporter ay xarit laay am man stade bi li ma koy feesal feesal yëpp ku ci nekk mën naa jaar sa tur ñii ñoo juddoondoo ñooy ànd bi ñu xale ba niñ toll ñii ñoo ñu yar ñii ñu suñuy mag lañu woon. Grand Yoff noonu la dundee. ah xaalis waaw ñu ngi doon dégg waxu xaalis temps yi Lamine fàttali na xaalis bi nga doon wax xaalis boobu nu mu demee sax. non loolu moom jotagul pour ñu wax ci bu jotee rek après nañ ci wax incha allah. jot nga ci xaalis bi yow. non bu jotee pour ñu wax wax. te nga waxoon ci fan yi paas. waaw mais après bi ñu ci waxee après. daa am lu la ci fekk wala. non dara. mais pourquoi mënoo cee fii ci Lutte TV. waaw ah, dañ see wax lootul rek dañ ne nañ bàyyi rek après bu wax ci nañ ci waxaat hmm. soobee. convoqué nañ ma ma ñëw demee génn luñ ma preuve génn luñ ma dara waaw dañ ne ma ñi ngi dem defi enquête téye sama xaalis mais comme jotagul pour ñu wax si nañ toog déglu leen rek waaw parce que xam nga fi làmb ji moom ñëpp xamante boo taxawee ne mobile dafa jam diw amoo vidéo bu mu jamee nit nga xam mbër mi mu doon bëreel boo woowee mbër mi mu jiital ki ñu jam indi ko comme nee nañ ci digg géew bi lañ ko jamee voilà waaw kon nañ leen déglu rek.